Ka ñu ngi ñuy xaar euh, la ñuy commencer bu Arcos Dakar euh, joyeux anniversaire à toi Fatima longue vie happy birthday à Mame Diarra moom aussi tey la anniversaire am joyeux anniversaire à la grande sœur chérie Diatou Ndoye Madame Seck Borom Kane happy birthday à la belle Khadija la princesse du 19 septembre longue vie à toi euh, happy birthday à Yacine Dieng de la part de toute sa famille depuis Dieuppeul joyeux Paris. Depuis HLM Paris Golf, c'est de la part de ta petite sœur qui t'aime fort, Panda euh, Badji. anniversaire à Mohamedou Fall de la part de Thioro Mbane Ndiaye. xam yow bii sa anniversaire la. happy birthday chéri Coco. <laughs> chéri happy birthday. Euh, happy birthday à Bi Bijou. Bijou waaw bijou ku ko bindee nii. Eh, bijou sunu bijou. bijou bijou ak ah, bësee bi moom dañ koy. notre pata préféré ndax sama anniversaire ba sama kër la ma ñëw indil ma bouquet de fleurs a Awa Ndiaye beneen bijou bi donc bijou bijou et bijou. nee na pata c'est dans la tête xam nañu que ñun dinañ ko wax pata mais nee na xamal nañu. man yow Pape Cheikh excited dinañu yàq. <laughs> elle est adorable donc on va fêter l'anniversaire comme il se doit. on t'adore tu es chou change pas reste comme tu es. ñoo ngi ñëw pour fêter anniversaire bi longue vie à toi et yàlla jàppale la jàppale ci projet yeeg liggéey beeg lépp loo. am nga fit <laughs> ba pare nga donc bu ma <laughs> à toi euh, à Ami Nongo aussi c'est son euh, anniversaire euh, depuis France de la part de sa maman euh, Kiné Ndiaye joyeux anniversaire à Adia longue vie pleine de joie de la part de Maïmouna Diouf joyeux anniversaire à Fatima Ndiaye Madame Sarr de la part de toute sa famille et de son biscuit chéri. <laughs> longue vie c'est de la part de madame Ndiaye Khadija Traoré euh, chéri Isma Ndiaye. joyeux anniversaire à Youssou Djité lu yàgg dëgg la longue vie à toi et happy birthday à Awa de la part de sa mère euh, Djetou Ndiaye de la Mauritanie et euh, joyeux anniversaire aussi à Ngoma Thiam Adja Ngoma Thiam euh, de la part de toute sa famille ses sœurs et moi moi moom xaw ma kan la <laughs> donc joyeux anniversaire à Ndeye Fatou Sow depuis Kaolack aussi Euh, Mariem reine du septembre borom guy Mouride Rufisque c'est son anniversaire aussi happy birthday à Fatima Diouf Arcos Dakar joyeux anniversaire à Daouda Sène de la part de son père euh, euh, Modou Ndiaye Sène happy birthday à bébé Tidiane Samb de la part de ta maman Mariem depuis Rennes et joyeux anniversaire à Diéwo grandi en sagesse je pense que anniversaire yëpp jàll na souhaiter jublu tey yëpp longue vie beaucoup de bonheur beaucoup de xaalis comme ni ma leen koy tout le temps loo leen bëgg yàlla defaral leen donc fi la ñuy jeexalee yeewu leen bi en mode accéléré jox antenne